Masyaallah allah xoolal miliarder, suppu miliarder. milliardaire suppu tut milliardaire kër maam def ah man nag mosumaa gis lii millionnaire buy togg ah millionnaire yi ah dengan am company togg Ni su foog ñu tooga ah, ñu ni tamit bilai bilai millionnaire buy togg nak. moo tax xidris na de foog ñu togga ah. ya yow daal togg rek nga bëgg daal yow ya bu ken di la toggal suma xol gi hein waaw dama ko bëggal ci supp kanja xol yi xétu karab wa fu yam bombe ne bam ci ay dara play ci ñaan gis nga bi suppa play ci ñaan ay wote ni waaw ayo play ma ngi ni ma ngi ni di la tuddu ci sinap bi di la may délicace ci supp kanja bi mam tuté ngi defal supp bo xamné surtout milliardaire man dal ñu ngi may topato dal man dal man dal li de comme guerre li nat la. li crab meat la. bulu crab nga ci defati ni waaw waaw. ay man li di. yëpp dugga. lii de waxuma la guerre waye comme yombal xiyaam bésu pinch yaay yaay la da yam bombee. bom si ay dara xoolal bopp kon yi xolo oxel yi xam nga ni lii neena mom ah ma am fuma noppalo wayi dañ joge ci family toga kat ulay ci ñaan xolo oxel yi ah, cial geeni la ilaha illallah dinañ fa yokka duty ah Willy <laughs> kabal sauce bi ci frigidaire bi ah fi ngay dégloo musique soo bëggee lekk nga ubbi glace soo bëggee déglu musique ci frigidaire bi nga tàppe artiste bu la neex yokk volume bi frigidaire bu am télé macha allah supp kànja bu toog laaw la cat waaye daal a ngi nii daal di noppalu ma neexee lekk ko sama ceeb ma neexee def fufu waaw milliardaire bee ko togg sama programme laa organisé milliard millionnaire bu millionnaire bu mag bi milliardaire bu mag bi moo gën ñëw ma pare dem gën ji milliardaire pour noppali ko ji maa ngi nii daal maa ngi ci sama jàmm daal man Sangoune Birame Jigéen lii laa wax. Wow, wow paparap paparaparap ana bomsi yam bombe ana ulay wala bobu bobu buletu fufu pap bito mashallah la ah, ila illallah ñi ngi ubbil mbaye youtube channel dootu len ko defati ñi nek sama sénat bi di roubé di sacc sama vidéo yi di ko dugal youtube ñu leen ciy fay alal ñu bari dootu leen ko defati bësal yow youtube channel bi Sina bi laay tëj léegi youtube dem bësal continuel ma ne Sina bi laay tëj tasar youtube laay def toog di def ay live laay nit ñi di bind di comment youtube ubbil ma yow ñu ngi may ubbil youtube channel man xaw ma woon yi man ndekete sama tur bi nit ñaa ngi ciy lekk xaalis di ci dund laa yow xoola génneel ma xool lii yëpp mbaay la youtube la youtube la am na ko am 700000 views 700000. xoolal lii yow. dootuñu ko defati. wane leen sàcc ci site ay ay Feeling Dakar Eleven Dakar Loiseau point net Thiey Dakar sene Senego Diaspora senegal Tala yàqu ngeen. borom tur wi na turam ubbil ma youtube channel dootuñu ko defati maa ngi leen nii di leen jaay ci internet bi. yow xoola laa ilaha illallah Sénégal en direct Sénégal la jël ngeen ma <laughs> mu yéen yow yi yëpp man la nii dootuñu ko defati ba pare nee nañ sama tur bi am na noo xam ne dama ko fay def su ma ko fa defatee ku dugal sama tur rek ñu bloqué la dootuñu ko defati jël ko live Rose eggalil eggalil yow eggalil youtube channel bi eggalil pap mbay am youtube channel bopam wuyu ye bandi ye gajangeer yi ñepp ñekki xola xol ma maak donald trump ay man yak nañ <laughs> donald trump luñ dugal ni yak ñu di xol ma yo ros yow eh, eggalil rek xale bu jigen bi youtube channel bi yow eggalil li eggalil li rek yow eggalil ma sama youtube channel rek bama jël sama tour wi ñi ay man ay man li lii lii man man man xaw ma yëgu ma woon nii yëpp nekkati ñi ñaa ngi lekk xaalis ci sama tur bi léegi nag sinaab bi laay tëj ñu dem YouTube YouTube am ngeen gan mbaaye am na YouTube channel dootu leen ko defati ñi daan sàcc ci sama tour bi am ngeen problème yow de dugal la ab dinaa def eh, débat bu rëy présente sama YouTube channel bi ñu ñi dem dem fekki ma YouTube fii wàcc